Uh, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ci yàlla ñoo ngi leen di nuyuwaat seen mbokk Abdul Qadir Diack moo dellu si tey di waxtaanaat ak yéen ci lu aju ci weeru koor euh, jikko yi nga xam ni weeru koor def koy def ci jullit ci sunu jataay bi passé commencé woon nañ ci ay wax ci ay tomb tey ñu ñëw àggale rek euh, waxtaan bi nga xam ne commencé woon nañ ko ak yéen mooy lu aju ci euh, jikko jawaanib tarbawiya yi nga xam ni wala durus tarbawiya maanaam ay leçon yoo xam ne ci wàllu yar ak ay jikko yi nga xam ne dañ koy góobee ci weeru koor euh, xam ngeen ni weeru koor comme niñ ko waxee woon farata la borom bi subhaanahu wa moom moo ko farataal ci ñun te borom bi lépp lum la digal lépp lum la sant ngir sa njariñ la nga xam ko walla nga ñàkk ko xam waaye mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala farataal na ko ci ñun benn bu ci nekk am na lu mu ëmb am na ay jikko yu mu àndal yoo xam ne daf koy suuxat ñu boo demee ci julli da nga dégg borom subhaanahu wa taala di wax ni inna solata tanha anil fahshaai wal munkar julli day euh, dafa ñëw di la tere lépp loo xam ne safaan la lépp loo xam ne lu bon la maanaam képp ko xam ne day julli julli gi bu fekkente ne defe nga ko ci anam bi nga xam ne noonu lañ la ko jàngalee nga defe ko comme noonu nga sellal ko kon yow de dootoo def lu bon dootoo wax lu bon kon day dalay fóot ba nga xam ne lu baax rek lu yiw rek moom mooy jógee ci yow boo ñëwee ci li nga xam ne moom mooy zakat borom bi subhanahu wa taala mu wax ne xuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha asaka dafa ñëw ngir ngir fóot nit ki ci ay bàkkaar waaye fóotal ko alalam ba nga xam ne day set wecc nga xam ne lépp lum ci liggéey dana dana barkeel maanaam yow da def lay fóot ci ay bakkar waaye alal ji def koy fóot ci ay tilim tilim yi nga xam ni mooy tilimu tilimu alal kon loolu jaamu yàlla googu it loolu lay def boo demee ci eh, aj borom bi subhanahu wa mu ngi wax ne fa ma eh, fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuq wala jidaara fi lxajj eh, koo xam ne dugg na ci aj ante amatul ay waxu caaxaan ak ak wax yu bon ak wax yoo xam ne waxu fasiq la amul xuloo amul ŋaayoo amul werante yooyu àndul ak ak kon day dindi ci yow yooyu jikko moo xam ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa na ngeen wut yóbbal na ngeen wut yóbbal waaye yobbal li nga xam ne moom moom a gënal man borom bi subhaanahu wa taala mooy ragal borom bi subhaanahu wa taala nga gis ne kon gis nga yooyu yëpp dafa ñëw ngir ngir def ci nit ki ay jikko naka noonu tamit comme niñ ko waxee woon korit it dafa ñëw ngir su nga ngir jëmbat ci yow ngir roof ci yow ngir suuxat ci yow li nga xam ne moom mooy at taqwa mooy ragal borom bi subhaanahu wa taala te ragal borom bi subhaanahu wa taala képp koo xam ne yàlla dimbali na la ba nga am ko sa pay mooy aljanna ndax dafa am benn saxaaba bu musa laaj yoona bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana yan mooy jëf yi nga xam ni mooy bu ma ko jëfee dana ma tàbbil aljanna mu ni ko taqwallahi subhaanahu wa taala mooy mooy ragal yàlla ragal yàlla daal boo ko amee wa husnul xuluq ak am jikko ju rafet loolu daal boo ko amee danga nga dugg aljanna kon nga gis ni kon taqwa boobu nga xam ne moom la ñuy wut ci euh, weeru koor taqwa boobu moom euh, jikko boobu ku am nga dem aljanna yàlla nañu ko yàlla defal kon jikko taqwa boobu la ñëw pour suuxat ko ci ñun euh, li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy koor ba tey bokk na ci li nga xam ni def koy suuxat ci nit jikko bi nga xam daf koy def ci jullit bi mooy gaddul basari anil muharramat wala amalu ala kasbi ridallahi wa mahabbatu nnaas koor aussi dafa ñëw ngir def ci ñun li nga xam ne mooy euh, jullit bi yar ay bëtam ba nga xam ne du xool dara lu xaraam du déglu dara lu xaraam du dox jëm ci dara lu xaraam du jël dara loo xam ne lu xaraam la maanaam dafa ñëw ngir yaral ko ay cëram ba nga xam ne cër yi jikko yu baax rek jëf yu baax dong moom moo ci jóge waaye dafa ñëw ngir yar nit ki ci mu mën a fàggu mooy ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala ndax xam ngeen jullit bu nekk ngërëmal ridwanullahi al akbar moom la bëgg yàlla nañu ko yàlla defar waaye koor dafa ñëw ngir suuxat ci ñun ñuy jëf jëf yu baax yoo xam ne dana tax ñu am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala waaye duñ ci yem waaye danañ am cofeelu nit nit ñi bëgguñu nit ñi bëgguñu ndax koor ku ko yor ay jikko yonent def na la sax boo demee sax ba nit saaga la wala nit ñëw bëgg a xeexe yow na ko wax ne man damaa woor àndul ak jëf ju bon àndul ak wax ju wax ju wax ju bon waaye koor dafa ñëw ba tey di euh, di suuxaat ci ñun li nga xam ne mooy al istiqaama mooy njub waaye di ko suuxaat ci ñun ci ak li nga xam ne mooy muraqaba muraqabatullah mooy di bàyyi xel yàlla te xam ngeen ab jullit fépp fu mu nekk war na bàyyi xel yàlla ci li muy wax ak ci li muy jëf muraqabatullah xam nga ne ko ci lu nëbbu nag ak ci lu feeñ foo toll di bàyyi xel yàlla xam nga koor gi ni mu mette ak ni mu tare waaye da nga bàyyi xel yàlla ba ba moo moo tax boo nekkoon yow kenn nit seytaane mënu laa puus ba nga naan wala nga lekk wala nga def loo xam ne yàlla santaane wu ko ndax xam nga ni bu la nit ñi gisulit yàlla mu ngi lay gis kon koor dafa ñëw di ñu jàngal muraqabatullahi fi sirri wala alan ak joxe li nga xam ne mooy waajib alal wa ci al li nga xam ne moom moo moo war ci yow nga def ko nga defe ko ci anam bi nga xam ne noon lañ ko sun noonu lañ koo farataalee ci yow waaye it mu ànd ak ixlaas ànd ak sellal borom bi subhaanahu wa waaye ànd ak foo toll di def mu daa mu da mu daawumatu muhaasabati nafs foo toll di di xisaab sa bakkan bi di ko bàyyiloo xel bu bëggee euh, jàdd nga ja nga jaarale ko ci kaw yoon bi bu bëggee def naka su dul noonu nga delloosi ko kon koor it dafa ñëw di def loolu ci jullit bi waaye koor dafa ñëw ngir di tasaare ak cofeel ak bëggante ci diggante société bi xam ngeen koor bu ñëwee comme niñ ko waxee woon léeg nga gis ñu bari di jóg di def ay action sociale ay nit ñu baax di jóg di tasaare yiw di tasaare ak mbaax tey jii ñu ngi ci kokki dañuy fi dajale mooy nit ko baax moo fi ñëw indi fi ay teraanga ak ay xéewal di ko béggalee taalibe yi di ko béggalee jullit ñi nga xam ne mooy jullitu yàlla yiñ fi fekk loolu tax na ba ñëpp a ngi ñaan ñëpp a ngi soppante ñëpp a ngi saafante xam ne lii ab bunt la boo xam ne kenn ku nekk ab roywaay la boo xam ne ku ku am ku nekk war war na war na cee roy nga gis ñu ngi soppante ñu ngi bëggante ñu ngi dimbalante te loolu euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni du ngeen du ngeen dugg aljanna li feeg gëmu leen yàlla li feeg gëmu leen yàlla waaye du ngeen gëm yàlla li feeg bëggantewu leen kon ay jullit fokk ñu bëggante fokk ñu soppante pour ñu bëggante ak ak ñu soppante nag fokk ñuy def ay action yoo xam ne ak ay jëflante yoo xam ne day day waral ñu soppante loolu bokk na ci jëf yu baax yi nga xam ne dañ koy def ci weeru koor nga xam ne jullit ñëpp ay daje saafuwante bëggante joxante euh, euh, jokkalante dimbalante wante kon loolu weeru koor dafa ñëw ngir jàngal ñu solidarité boobu ak soppante boobu waaye koor dafa ñëw di ñu jàngal tabe tabe gis ngeen ñu bari ñu ngi génne seen alal di ko def di ci dimbali miskin yi di ci taxawu daara yi di ci taxawu miskin yi ak foqara yi loolu nag ab jikko boo xam ne warul yem ci weeru koor warul yem ci weeru koor weeru koor daf ñu koy jàngal maanaam day ñëw di renforcer day day ñëw di renforcer dañuy wax renforcement de capacité loolu dong la ñëw di ko def ba nga xam ne léegi bu ñu jógee ci weeru koor li nga xam ne jëlee nañ ko ci weeru koor ci ay jikko dañ koy appliquer ci yeneen weer yi ci yeneen fan yi ci yeneen asaabi ci yeneen yeneen at yi nga xam ne day nekk jikko boo xam ne day taqoo ak jullit bi mooy solidarité boobu waaye weeru koor dafa ñëw ngir aussi ngir maanaam ngir renforcer li nga xam ne mooy cofeel ak yërmande ci biir société bi ñuy yërëmante ñuy soppante ñuy bëggante di taxawante di jàppalante waaye weeru koor dafa ñëw ngir di def ci ñun ay jikko yoo xam ne jikko yu baax la waaye ñu sori bépp jikko boo xam ne jikko yi jikko yi safaan la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni euh, euh, képp koo xam ne woor nga te mënuloo bàyyi ay waxu caaxaan ak yëfu caaxaan ak ak ak lu bon yàlla amul soxla ci sa koor ndax koor li ko indi mooy tàggat def ci yow ay jikko yu baax ngay wax lu baax ngay jëf lu baax di di sori lépp loo xam ne jikkooy safaana ni kii ay ay jëw ak ak ak ak ak namima alxiiba wan namima ak ay jikko yoo xam ne jikko yu suufe la kon loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy koor koor daal dafa ñëw di renforcer sunu ragal yàlla di gën a dëgëral sunu imaan ci yàlla di gën a dëgëral sunu cofeel ci yàlla di gën a dëgëral li nga xam ne mooy sunu relation ak sunu borom subhanahu wa taala ak sunu relation ak doomu aadama yi dafa ñëw ngir di ko renforcer di ko dëgëral loolu waaye waaye koor dafa ñëw ngir di ñu yar ci ay fadail ay ngëneel lépp loo xam ne lu baax la ñu tàmmee ko ci weeru koor ñu jàngee ko ci weeru koor nga xam ne naa naafila yi nga xam ne dañ ko doon def ci weeru koor bu weeru koor ko jeexee ñu continuer di ko def alquran bi nga xam ne dañ ko doon jàng ci biir weeru koor te mu am tuyaaba bu bari lool bu weeru koor jeexee ñu continuer di jàng sunu alquran askar yi nga xam ne dañ ko doon def ñu continuer di ko def sarax yi nga xam ne dañ ko doon def di di di sarax ay néew ji doole ak di dimbalante di taxawante loolu bu weeru koor jeexee it ñu continuer di ko def kon daal lii mooy weeru koor weeru koor daal weeru jaamu yàlla la weeru koor yonent bi sallallahu day wax ni euh, ñàkk na wala ñàkk na sens koo xam ne weeru koor ñëw na ba jeex mu dund ko ba mu jeex te jéggaluñ ko ay bàkkaaram nee na kooku ku sàggan la de kon weeru koor daal dafa ñëw ngir di ñu delloowaat ci yàlla weeru koor dafa ñëw ngir di ñu rectifier ñu mën a tuub dellu ci borom bi subhaanahu wa taala lépp loo xam ne moo tax bu weeru koor bu duggee yonent bi sallallahu alayhi day wax ni dafa am benn malaayka bu ñuy yónni naan képp koo xam ne daal da bëgg lu baax ñëwal mbaax ñëw na de muy weeru koor ñëwal waaye képp koo xam ne nag danga nekkoon ci safaan la waaye nag léegi weeru koor ñëw na bàyyi li nga doon def ci lu bon te fe nga fexe nga tuub nga dellu ci borom subhanahu wa taala di def lu baax kon weeru ngëneel la weeru barke la weeru yiw la weeru formation la ci wàllu jikko ci wàllu comportement ci sa waxin ci sa doxin ci sa jëflante ci sa sa diggante ak sa boroom ak sa diggante ak sa bopp yow même ak sa diggante ak doomu aadama yi kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp diñ ci waroon a wax bari na lool yaatu na lool waaye lii daal mooy lu gàtt li nga xam ne tënkoon nañ ko bëgg koo jariñante ak sunu mbokk jullit ñi de ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ni ballighu anni walaw aaya ballighu anni hadisan walaw aaya benn donte benn aaya la na ngeen koo na ngeen koo jottali kon lii lañ ñëwoon ngir di ko di ko di ko séddoo ak yéen di ko bokkoo ak yéen di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp waaye it di ñaanal li nga xam ne mooy daara ji muy daaray kokki nga xam ni euh, daara jullit ñëpp la njariñal lislaam la njariñal jullit ñi la barab la boo xam ne dañ fay jàngare alquran bi nga xam ne yàlla ñu sant pour ñu jàng ko barab la boo xam ne dañ fay yare ci wàllug lislaam te gis ngeen réew mi nu mu tumurankee ci wàllug yar kon barabu lislaam la barabu barke la barabu jaamu yàlla la ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa yàlla taxawu daara ji waaye taxaw mboolem daara alquran yépp taxaw ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ci alxuraan ñoom ñooy jàngale alquran ak ñiy jàng alquran ak ñiy taxawu ñiy jàng alquran ñëpp yal leen yàlla fay yal leen yàlla taxawu ah, ah alquran nga xam ne ci weeru koor bii la la wàccoon li ci nekk ciw yiw góor góorlu ci di di di di ko di ko jàng nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla góor góorgóorlu ci jëf yu baax nañ moytu lépp loo xam ne safaan la te ñu xam ni borom bi subhaanahu wa taala lim ñu sant mooy jaamu yàlla adduna bi yàggul waaye li ñuy laaj ëllëg mooy jëf yi nga xam ne doon nañ ko def fii kon nañu góorgóorlu yàlla nañu yàlla may koor gi commencé nañ ko ci jàmm yàlla nañu yàlla may ñu jeexal ko ci jàmm ñu ngi jaanal ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw daara yi yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla barkeel seeni alal barkeel seeni njaboot barkeel seeni liggéey aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa seen mbokk Abdul Qadir Diak moo fi jaaroon tey di di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaanal ña eh, tey baalu àq ñëpp tey ñaanal ñëpp yàlla yàlla nañ yàlla may koor yàlla yàlla nangul sunu koor nangul sunu naafila nangul ñu sunu jàng alquran nangul ñu sunu mboolem jëf yu baax yi nga xam ni moom lañuy ñuy ci weeru koor bi waaye li nga xam ne mooy résultat wu weeru koor woor weeru koor te mooy taqwa yàlla nañu ko yàlla defal jikko yi nga xam ne moom la weeru koor war def ci jullit ñëpp jikko yooyu yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla suuxat ci ñun yàlla nañu yàlla sàmmal sunu diine sàmmal ñu sunu pas-pas sàmmal ñu sunu réew mi def fi jàmm def jàmm ci àdduna bi yëpp as aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen te activer bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daarakoki TV la chaîne au service di cinq Coran